nit ki mooy actualité bi gis nañ ni Ousmane Sonko jàpp na ko mhm. wax ji bëri na démarche yi bëri nañu ku nekk ngi wax fii ko bàyyi fee <laughs> ñu wax na wala nañ sa appréciation par rapport déjà ñu ko ndax normal na normal est-ce que réewu Sénégal war na Ousmane Sonko man la man kay li ma jaaxal baa mooy yéex gee wax dëgg yàlla yéex gee jàpp moom na ma trop parce que mel Sénégal Ousmane Sonko yor code pénal ci waxee lu ko kan neex wax kenn du ko wax dara li doon wax boo ko ba nga ni jàpp nañ la sa ku ko ci waxoon jàpp man ni du ma waxoon président dana ma ma ko ko def def ngi 16h ma ko ku ko wax fa nga ko lañ lay fekk man yéex gee jàpp mooy son problème mais ñàkk gee jàpp moo c'est pourquoi encore une fois moi je félicite les forces de défense et de sécurité ci taxaw di féliciter justice parce que en réalité coowul Ousmane yëpp rek la bëggoon duñ ko àtte duñ ko daan coow na ba mbooloo faatu fi teewul ñu ko ñaari yoon daan ko ñaari yoon kon la justice est debout kon mënuñu ko maintenant lii fan yii ñi nga wéy day grève de la nga baax Ousmane Sonko daa defe moo gën a muus nit ñi waaye nag ah, am na ñu ko gën a njàccaat de xaar yësi lan la bëggoon coow dugal sañ sëñ Muntaxa bañ may ko liberté provisoire gis nga bu ñu ko mayoon liberté provisoire lu dem këram xam nga fan la jëm ci juge ba su demee constitué prisonnier ah, procès mag Adji Sarr ñu anéantir ko loolu donc moo ko taxoon ak lu bari damay grève de la faim ma ngay sukkuraat dara du ci dëgg stratégie la bu mu laloon rek pour bu buñ ko buñ nee ko am nga liberté provisoire bu génnee daw ci juge ba daal di constitué prisonnier su ko defee le procès Adji Sarr ñu anéantir ko day nul ñu war ko attewaat bala ñu ko attewaat parrainage yi commencé mu bokk ci élection yi c'est-à-dire que bokk ci élection tax na Ousmane Sonko rey fanweeri nit yàq fi milliard fenn fi fenn lu ay nit maintenant nag toujours damay wax gis nga Ousmane Sonko li mu def nii baax ñun ñi nga xam ne dimbali nañu ba yóbbaaliwuñu war nañu sant parce que Ousmane Sonko na na ci Sénégal borom xam-xam yu ak yu ragal boo ne xam-xam nag ñi nga xamee xam-xamu tubaab ak xam-xamu diini parce que maanaam ñu da nga ciy dégg wax loo xam da nga naan nit ki fan la jàng ak lan la jàng muy ñu jàng tubaab ak ñu jàng diini. sa ñi dem nañ dem ba fàtte sax li ñu jàng ci xam-xamu tubaab ak li ñu jàng ci xam-xamu diine bu ñuy wax ci mbirum Ousmane Sonko loolu nag lu doy waar la waaye encore une fois je crois que jàpp gi ñu ko jàpp moom mënu woon a ñàkk maintenant moi ce que je demande encore au président de que ju dossier bu nekk ci juge d'instruction yoonam nekku ci li man daal mooy bu fekkente ne dañ ko demandé liberté provisoire procureur nangu wala nekkeel wala mu bàyyi wala mu opposé wu li ma ñàpp daal même bu ñu demoon ñoom ba demandé liberté provisoire pour Ousmane Sonko procureur na opposé wu parce que stratégie bi ñu lal mooy fii ba de bii ba élec bii ba bii yi saa suñ ko mayee liberté provisoire day génn dem constituer prisonnier donc encore une fois rien que pour nekk maintenant bon loolu nag jàpp naa ne gouvernement bi xam nañ ko il n'aura pas la liberté provisoire maintenant li ci des nag mooy li ma wax sànq rek képp kuy responsable parce que moom njariñu Sénégal mooy ñoom ñëpp la ñu war a jàpp. waaw ñoom ñëpp nag lu ñu bari bari nag nañ leen jàpp parce que ba Erdogan la mu jàppoon mat na vingt mille personnes ñenn ñi sax nee nañ quarante mille donc bu ñu matee quarante mille nañ leen jàpp parce que euh, moo gën ci réew mi daal ndax taal ko yeekut fitna lañ. mais li nga ñëw société euh, seen taxawaay tout le détenu politique yow yoo xam ne fekkee nga peut-être lu bari ci histoire politique bu Sénégal euh, parce que fekkee nga jamonoy gauche di politique gën a tàng ak les considérations ko commencé ak fekkee aussi jamonoy Abdoulaye Wade fekkee nga wax sénégalais yi maanaam mooy lan détenu nga bu dee bu société civile ak politicien bi ñu joxoon bu détenu politique mooy politicien bu ñu jàpp déedéet un détenu politique mooy ku ñu jàpp ci mbirum politique. waaye koo xam ne dañ laa jàpp ci ngay nga ngay nga nga nga rey nit wala ngay def lu mën a rey nit wala nga waxu tooxi doona kooku mu ne su ko jàppee détenu politique par ñi nga xam ne dañoo ab ab ci ab ab bus nit faatu ca mais ñooñu duñ détenu politique ñi doon defar ay cocktail molotov ñooñu duñ détenu politique ñooñu ay saay saay yu bëggoon taal réew mi lañu jàpp leen c'est pourquoi man quand j'entends certains certains sociétés di wax yu mel noonu ah may xaw a maintenant li ciy métti mooy baa diggante 2021 léegi Ousmane Sonko waxam yu rëy yi tax na fanweeri nit faatu ay milliards yàqu fi ma jàppoon nañ société civile bi buñ ko artu woon jamono yi ñu ko waroon artu lii du am du am rawatina ci nitu diine yi am na fan yi communiqué bi ma gis ñu bind ko lañu ñu waroon a def ci Ousmane Sonko ba muy wax waxu tooxi doonam yi ñu nekkoon e sëñ bi bàyyi li ngay wax su boobaa bu continuer bu baax xëy na du kon ne wala bu kon dee sax bu baax xëy na mën nañu wax leneen waaye nag wax dëgg ne pat muy wax dañ maa complot dara du ci dëgg muy woote mortel combat nit ñi di faatu muy wax de taal leen nit ñi di taal ba réew mi daanaka xaw a màbb ñu jàpp ko ñoom ñu ne léegi nañ ko bàyyi moom Sonko ak ak ñi ma àndal yëpp comme si fanweeri nit yi faatu so Ousmane Sonko daf leen a gën seen bakkan bakkanam daf leen gën loolu c'est extrêmement grave parce que ñi faatu Ousmane Sonko moo leen rey lu tax ñoom masawuñ ñi faat ñaanaluñ ñi faatu massa seen i bopp waaye ñu ngi naan dañ jàpp en réalité wolof yaay def ne ku wax feeñ ñu ñu bari ci ñoom dañoo bokkoon ci projet politique bi parce que xam nga dafa ne Pastef day yu bari Pastef am na l'islam politique boo xam ne d'origine étrangère ay prêtre musulman ak ñeneen mais aussi am na même l'islam politique confrérique am na ci biir Pastef am na ñoo xam ne xeexu Casamance ba la ñuy bëgg a ci ci Pastef yooyu yëpp nag mooy dajaloo waaye nag ginnaaw nee na wolof ne ko wax feeñ xëy na projet bi xam nañ ne yàqu na ñu bëgg ne nañ wasal suñu àq waaw ñaan waaye ñaan président mu bàyyi Sonko mais bu ko président bu président d'abord waru ko bàyyi mu waru ko sañu ko bàyyi ndax yoru ko justice bu ñu bàyyee Ousmane Sonko lam la ko intéressé dara jotu ko day dem constituer prisonnier ñu anéantir projet bi bala ñu ko àttewaat élection yi mu bokk ci kan malgré que mu reylu fanweeri nit yàq bi alalu réew bi ci des mooy ñu condamné ko aussi ci foyee gore gu jigéen et li gën a garaaw nitu kilifa diine goo xam ne ki ñuy ki ñuy topp dañ koo topp ci parce que Ousmane Sonko pour la première fois dans l'histoire politique ñaari nit ñoo koy topp état bi topp ko ñu topp ko ci gone gu jigéen goo xam ne da ko defoon yoonu tool waaye xanaa lu sëriñ bon bon kay war nga xam ne lii moom suñu borom da ko tere ku def tooxi doona bu mel lu ci diine bu doon lislaam dañuy doxal ci réew mi kon dañuy dag bàtt li mu defal ma mbay fenal ko sos yàqub deram ci lislaam juróom-ñett fukki yari yoon lañ ko war a dóor waratul nekk iliman waratul nekk seede waaye xanaa lu sëriñ bon bon kay xam na lii ku def lu tooxi doona yu toll nii nga nga ne nga ne nag nitu diine nga di ko jàppale li garaaw ci li nga def mooy boo def nag da ngay daganal lu bon moo tax sëriñ si war a nopp ci mbirum Ousmane Sonko suñ bëggee duñu di dagan duñ dagganal lu bon te daganal lu bon nag ab sëriñ mënul def bàkkaar bi ko gën a rëy et malheureusement ci lu mel noonu lañ toll mais en gros moi je félicite encore comme ni ma ko waxee rek les forces de défense et de sécurité je félicite les magistrats du